temps gare routière Petersen et so port ni ko suñu kilifa suñu njaatige honorable maire député euh, secrétaire général bu transport routier sëñ Alsane li mu wax daana ko ci laa mën a jaaraat rek assemblée générale bi jox nañ ko moom def na ko jël na ay responsabilités yëpp li war a def lépp def na ko gërëm nañ bu baax nag membre yi nga xam ni yooyu ñoo ne ci regroupement bi fu ci ne nekk ci Sénégal teew si nga kenn ku nekk wax nga li nga xam ne moom nga xalaat ñun tam wax na leen li ñu liggéey léegi nag li ci des mooy comme noonu mu ko waxee suñu yàlla yóbboo ci ba dina sotti ci ni dañuy dem élection wala am na benn bureau bu taxaw boo xam ne bureau waxtaan la door mooy consensus bi muy wax ñun nag sant moom def nañ ko ñëpp ba noppi amul kenn ku ñu santul bàyyiwuñu kenn kuy membre rek gërëm lañ sant la ci wuy bi nga wuy si ndax kenn ku ne bu toogoon këram maanaam bu ñuy wax dina xaw a lëndam mu baa mu gën a ñàkk lënd waaye kenn ku ne am na lu ñu la wax loo mën a yóbbuwaale boo ko gëmee jox nañ la ko boo ko gëmul jox nañ la ko waaye nag nit moom du joxe lu mu amul li joxe moom moom la ñu yàlla dénkoon leneen li si kanam lépp nag bàyyi nañ ko loxo yàlla ah, waaw ñoom bu bureau bi man maay seen bopp man lañ àndaloon di liggéey waaye man maa leen jiite woon ci wàllu liggéey bi man rafetlu laa seen liggéey sant naa leen bu baax it na ma leen ko noonu liggéey loolu ñoom ñu ngi ko neen defe noonu jox nañ ko mi li ci des bàyyi nañ ko yàlla bàyyi nañ ko mbooloo wasalaamaaleykum wa rahmatullah